Mangiya ngi nak mangi maa legi gis ngeen jël affaire yi sama dóor daanu bi rek tas ko ci ki bi di def ay air Bousse ak air Sénégal waaw Sénégal nak ni la bindo duñu gis sa lu bax sa lu bon rek la jema dindi mais man gaynde gi ma doon mënon ngeena a sama lu bax waaw nak arbitre def ne prip ma attaquer rek rek pim pam king bing bing tuba tubaab yep yuuxu ménagère am yeeg yëpp arbitre bi woo ma ba ma ñëw ne ma you di the king next match gars yi nekk ci receveur yeeg yooyu di xool ordinateur yi naan ma gaynde ga ku la gis xam ni ndaanaan nga ku la gis xam ni champion nga ku la gis xam ni indi nga forme bu baax yàlla rek la lii ma doon gaynde ngeen wone sax attaqué yooyu yi mais sama attaqué yi doo ko gis fenn man maa ko dugal man attaqué yi ba mu daj man mii maa ko dugal ken dugalul attaqué du ben TikTok du ben Instagram attaqué yi ma attaqué rek rek menn man ma ko dugal man mais c'est grave menn man ma dugal attaqué yi ma attaqué rek rek ak dóor yi ma ko dóor ak coup yi ma ko jox yéen ñëpp dóor mu daanu bi ngeen dugal li ngeen don xaar nak Yalla dogaluko. mais jambar gi jambar ba atara jël rëg rëg rayanteeg moom yéen ñëpp ngeen dangeen ngeen a ruus gàccee leen jàpp gàcce ko bona leen jàpp ndax yéen ñëpp da ngeen a fondoon damay ñëw a yaafuus wala wan a yëfi tàppet wala kii mais da ngeen ruus amoo leen wax moo ngeen di jël dóor mu daanam di ko dugal ruusa leen jàpp nit nag boo ruusee lu la neex ngay dugal da ngeen a ruus ndax ñëpp da ay dina deeg lépp mën a teg man rëg rëg dama rey man man ku ñu rëg rëg mënu maa rey da ngeen a ruus boo rusee moom la ngay dugal